remercier le Sénégal en tant que tel et surtout dans la période de la pandémie actuelle qui n'est pas facile. Additionally, give appreciation uh, once again to uh, the, government and how they've dealt with the coronavirus and, and everything we have. Et nous voulons dire merci au gouvernement pour la manière dont il a pour euh, contenir la pandémie. Um, so once again, we thank everybody for coming today. Today we have the uh, soft initial opening of one of our restaurants under the uh, New World um, as a brief introduction, Donc nous représentons New World Media Group et aussi nous avons Dream comme restaurant. Aujourd'hui c'est l'ouverture de Dream, mais la partie fast food de Dream. Et euh, là nous avons, il voulait introduire, il s'appelle Azeya, c'est un des représentants de, de New World Media Group. Mon nom est Sophie Barros. Eh, Once again, we have the opening for Planet Pizza, uh, soft opening today. Uh, Planet Pizza is one of uh, the brands that we have. We wanted to make it where you can have a good dining experience. Uh, uh release is we have the video for Bubu Dimbao. Uh, and Nous voulons par la même occasion vous présenter la nouvelle vidéo de Bouba Dembao. Uh, some of the video. Mais um, but avons really aimé working with him. Uh, really fun guy. Uh, and we, we really think he's been a great addition to the New World family. Donc, euh, Bouba Dema est un des artistes qui a signé avec New World Media Group et euh, nous sommes vraiment ravis de travailler avec lui. Il a fait un super et grand euh, travail au sein de l'entreprise. Salam alaikum, Guy. Je suis venu à la presse pour sortir de ak euh, américain yu may aussi tamit un resto bu buñ di wax ngi bu ak moment coronavirus et tout xam nga mu lu difficile max obligatoire distance bi respecté et tout di leen baalu ñëpp ak déplacement et tout Sophie.

mais je sama fierté moi Je suis dañuy ñëw di qualité image bi baax na de clip Je suis fier de scénario fier de ne Je suis fier ma def ko def fier mu Je suis fier lu nice la remercier aussi mes américains et may ça fait bientôt quatre mois j'ai signé avec eux mais depuis lors nous def travail bu bu quoi par rapport au temps man dama doon filmer ak téléphone suis suis de si téléphone Red Camp moo may filmer et ça coûte cher mun naa ne sax ñu ko am Sénégal bëriwul c'est quelque chose sénégalais nag toogoon nañ di ma xaar si ay affaires yu bëri ay gëj nañ dégg buuba dëmbaaw si lu mu nekk mais dañoo nekkoon si projet corona bi ñëw amul def concert amul def lu bëri affaire de bëri mun ma xoon def par la suite j'ai signé avec les américains ils me demandaient du temps

ñu ne ma ñu ne ma affaire bi resto américain lay amee man leen waa dinaa ñëw ba ma ñëwee gisuma woon sax américain man maa commencé di interviewer Zos affaire bi explosé far yàlla naxate boss bi romb na gis na ma léegi ba ma gisee mu laajte gars yi kii kan la et puis c'est ku ñëw sa kër di nga laajte kan moo ñëw sama kër léegi ba ma laajtee kii kan la man yëguma ko sax benn waaye la laajte kii kan la lu tax muy interviewer Zos parce que Zos moom moo ma njëkk sax dream parce que day am na link ak bos bi quoi

mooy am ngeen problème yéen ñëpp. no gara feccal maa rexee mooy ñëw leen ngeen fecc en anglais. loolu ban làkk sama làkk bopp. buuba dëmbaaw dama am samay propre parole buuba dëmbaaw mooy buuba dëmm la. continuer dëmm la waaw continuer léegi ma léegi ma wan na la continuer di wax rek. en fait dëmbaaw bi dama mësoon def benn vidéo. ñu laajte ma nan lañ waxé waxee dëmm en anglais ma ne dëm mbaaw léegi nag ñu bëri dañuy foog mbaaw la dëkk alors que dëkkuma foofu c' est waaw dañ ma doon laaj ay vidéo nan lañ waxé ciép nan lañ waxé mboroxé nan lañ waxé waxee suufu après ñu yexsi nan lañ waxé waxee dëmb ma ne leen dëmbaaw depuis loolu ci la gaay gars yi jëlee moo boobu baaw euh sama digënté ak artiste yi nekk Sénégal jamm ak salam parce que dama ñëw nekk sen frère té ñom dañ ma bëggal sen bop mo xam Sidi Diop mo xam wali même pas avant tabaski bi yépp damay tasante ñoom sax man damay étonné quoi dama naan man lan laa def ba ñu war ma bëgg mais naxate lu jot yomb quoi damay ñëw Wally mu ne ma man sa numéro wër naa ko ba sonn man xaw ma woon ndax Wally Seck dina mun a mun a soxla sama numéro tu ay nit yu bëri dañuy ñëw dañuy ñëw ma artiste bi dala bëgg man damay foog ne ay caaxaan la ñu tase lii ñu kott ma jël sama numéro na ma ñëwal kër ga ñëwal lii ñëwal laa kon tey am na lu ma wone moo tax am na lu ma wone même pas cinq mois laaki chaaki rumba ak yenn vidéo yoo xam ne ay court métrage koor gi affaire yu bëri quoi. loolu lépp man la lu may wax gara feccal maa la xee laaki shaaki rumba the popline jan cover laakin boro ceekin boro laakin boro laakin boro pref right now loolu yëpp man la tu vois ma may toog inspiré wu na tey yëre bu ngand lay sol dàll bu ngand chaîne xaama dem jëli benn golo parc ba téye ko sama loxo xaama jëli benn mbaam téye ko sama loxo lépp c'est Bouba Deumbaw quoi may toog su ma tëddee guddi di inspiré di xalaat mais yeneen yu ma nit di yokkal et tout c'est des yoo xam ne ay xel la nii rek C'est Bouba Dembao en tête. Yeah, because I'm Bouba Dembao. I'm coming to your girl Shaki Mons, the new world major, Hazai and Sophie. Right now, that's better. tu as le marché. Il nous a montré ce que personne d'autre n'a fait. Il est comique et aussi il attire la population, la jeune population. C'est pour ça qu'on a choisi Bouba. En fait, son habillement est comique. Lui en tant que tel, ses paroles sont comiques. <laughs> Donc, il attire nous voulons développer la population jeune, les aider. Et Bouba en fait partie. Bouba nous aide à amasser un grand public jeune. On, prévoit de faire plein de films avec lui, de faire des... Euh, il, est déjà dans le programme de karaoké. Et c'est surtout de le faire découvrir à l'international, en fait. Je suis un artiste xam nga doog a dugg ci cadre musique quoi. bon dañoo am fu ñu quoi dañoo gisee maak moom ñu bokk benn koñ xam nga muy sama frère vraiment nekk ku baax xam nga mu ñëw proposé ma ne ma nañ def benn vidéo xam nga ma ma ñëw teg yi xam nga parce que moom c'est un comédien man je suis un musicien artiste percussion xam nga mu ne ma nañ def benn vidéo ma ne ko ok amul problème mu tànn jour vendredi c'était son jour jour anniversaire le 13 décembre du ma ko fàtte waaw.